bismillahi rahmani rahim Grand Prix Cheikh Bamba Xaadimu Rasuul ci jaayante lañ liggéeye liggéey bu rëy bile ci jaayante lañ liggéeye liggéey bu bile bu ayaamu badrin dekkiwaatoon fi tey jile du ngeen sikk sàkkaa teeti njàmbaaru gaa ku jot tey ci julleeg sëlmal ak woor aji ña jaayante seenug dunda tax tey nu tallile fa ridwaanu rabbil arshi lañ leen di ndokkale saxaabatu xayril xalqi yaa xàll ngir mi le ña leen jàppe ay roytee fa def jëf ju rëy jile bi am waalihim jàmbaari siñ bàmba yaa ngi le ku teg ñetti nit yi junni tey door a tàmbali ba woo laa ni jaar imraani fas yéene mottali juróom benn fukki junni fii kulli suuratin bu kaamil ba daanoo tey de jaaraama gaa yile bu ñuy xatmu kaamilub tabak talli tallalal saxoo nag di wax amiin a gën toog di jëllale saaxibul fadilati cheikh muhammadun il muntaqa mbakke jëliilun jamiilun mbakke yaataaru nooy defee sa paste fa tax doo songuloo nërta yeggale sëriñ muntaqa semmal nga mbooleem ku daa joxe ku lay roy ci ak jaayante ak raw la cay jëlee musóo deñ di kuy soññee ci njàmbaar ak ci pas-pas nga xàlle yoon wu leer naññ tegtale damuk suuratul anfaali ak saaru saa waral saar wu dul woo tànn ñee leen ci jëf jile bu uudin sa goos ak tànn yuusuf nga taarale liggéeyub sëriñ tuuba bi raadin nga leerale sëriñ Muntaqa yeesal nga pas-pas bi def lile ci pasteefu Ibrahima Saar waa wéral lile bi xajirin wa nahlin summa kahfin nga mottalee tëjee limba yi taaxee cofoo jëf ju rëy jile ñetti million way seen sas ya ñoom fukki saar yile sëriñ Muntaqa Mbakke ni jox leen ma saar yile guddal fanta wér lool Mbakke seddal nga xol yile te taaral nga liggéeyub murit yi ñu tàmbali ajaa jëf sëriñ maam cerno ñang tabbile mu jaa toolay seede ak jëf jurey jile sa jaayante beeg saar wii ci ngay feeñe yow mile yow ak moom ba biir aljanna diis nañ ko siñ bile juróom benn fukki junni tuutul ci wenn saar na buur nangu jëf jiiful ko barkeel sa mbir yile sëriñ Nasiiru ka jëlan bi yaa ek xaj jaayante mooy sëriñ nadir banko leeg pastef ba jaajëf ku baax kile jikkoy tab ya ak way tedd yàggaayu tàll ya nga booleek defub yaaram ba tax tey nga man li le juróom benn fukki junni ngir saaru bi lambiyaa demaat xaj ji def noone xajoowoo ki tappale nadiir lépp looy yootoo ko sàkkooti fum fi ne na buur ñot loole jox la loo naal mu yeggale fa amina amin yal na buur nangu ñaan gi le ci barkeb sëriñ Tuubaa mi lay tax di def li le sëriñ Fàllu 28 bu ab tab defee yitteem ja muy raw ca gaayale du def ndànk kët buy def ci liggéey bu réy bile bu yuusuf desoo nag rax di siñ fàllu 28 du leen bàyyi 600 000 la jël def ci saar yi le sëriñ fallu loo moo la nga yootu yàlla na ñoŋ te yàlla barke lépp andil la foofule yow ak waa ju wax amiina amiina waa jile ci barkeb sëriñ Tuubaa ak liggéeyam bu réy bile Ahmad Saloum Dieng ni Ahmadu Saloum Dieng def naa ci tey jile ku yittem di ak njàmbaare bégloo na kookale juróom benn fukki junni moom it ne gaayale ku raw tilde des gannaaw te yow xam nga loolu le rawal jang na say jëf nangu buur yàlla sàmm la te aaree la saaru naas nga raw maas ga feeg fale Sëriñ Moustapha Niang Sëriñ Moustapha yow saaru muuminuun ndegam moom nga jaayanteel bégal gis na jëf jile ku jaayante ngir liggéey bu rëy bii de am ci ndam te yow say 300 000 de jébbal nga saar wile sëriñ bamba mii ngay sàkku mbégteem ci jëf ji le na nangul la sa jaayante naatal sa mbir yi le wajal bi jaayil multaxa xayaati riayat alqurani dhil ayaat